askan bi ñaalu nañu ubbiteew usine batterie bi fa ne te ñoom ñu amaloon ay xeex yu tar ba boobule usine tëj waaye lu leen jaaxal moo di ñetti weer lañ ci teg boobule usine tijjiwaat. li ñu jàpp ni moo koy tijjiwaat mooy li ñi ma jiitu wax rek mooy euh, mooy mooy mooy jaay ñu doole benn mooy jaay ñu doole beneen bi aussi mooy jàpp nañ ni euh, sunuy kilifa. Euh, yi nga xam ne ñoo nekkee ci local bi localité bi euh, tëddewuñu njaaxaanaay ndax boo déggee sa njaboot di jàmbat la moindre des chose mooy nga woo leen déglu leen ci loolu géem nañ ko ay yoon ci le maire le maire de la commune de Kër Moussa mais à chaque fois amuñu ci benn résultat suñu demandé audience kenn duñu faale bu ñu leen invité réunion duñu ñëw donc ñu lool rek lañ mën bile usine bu ñu sukkandikoo ci askan wi yeewoo ci la zone des Niayes ay jafe-jafey tar lay indi la nit ñi ci seen wér gu yaram te it baaxul ci mbéy mi ak jur gi. jot nañ ko jàmm càmbar parce que am nañ fa ay ay ay ay nit ñoo xamante ni loru nañ ci ci ci ci ci ci ci ay jigéen yu wanoon lor euh, looru nañ ci euh, maanaam seen seen seen seen seen ëmb yàqu na si ñu baal ma ci kàddu gi. mi ngi lor nit ñi mi ngi lor bàyyi ma yi mi ngi lor jur gi te mi ngi lor jaww ji aussi. kon daal usine bi man gisuma lu mu baax ba tax na gannaaw décision président de la république dakkal ay travaux ci littoral bi jàpp nañ ne gàncax bi soxal na leen lool te dinañu def ay jéego ba ñu am safara ci mbir mi. léegi de comme te réew mi daa am ñu bees ñu fi ne am ñu fi dog ak benn kàddu yi nga xam ne dañ koo dégg ci ñoom ñu wax ko ñu doxalee ko muy Ousmane monsieur Amadou Diomaye Faye looloo tax na ñu fabari ko waat takkuwaat waat nekk ah comme te nit kat ci kàddu lañ lay jàppee te ginnaaw déglu nañ ay kàddoom déglu nañ kàddu ñi nga xamante ne ñoo nekk tamit ci ginnaawam kon nañu jugaat takku. ci biir situation population bi nee nañ dinañ def seen kéem kattan ba lu ñu bëgg ñu am ko ba tax na ñoo ngi ñaan gouvernement bu bees bi rawatina njiitu réew mi mu def lépp ba boobule na ñu tëj ko te ñu bañ koo tijjiwaat.